liggéey liggéey bu màggam bi nga xam ne tey jii lislaam jëpp sañ nañoo feetu ci 18 safar fukki fan ak juróom-ñett kenn ku ci ne wóor na ne sa jëng yi nga xamante ne moo doxoon sa diggante àgg ci suñu borom sëñ Tuubaa moom moo ko lijjanti kon noo ngi sant bu baax ci sa dikk gi fii ci exposition bi nga xam ne àdduna sépp mën nañ cee jàngee ñu xam ne sëriñ Tuubaa mbiram mooy law xalima naasu maahu naa la baadaroo ilaa talabihi walakin la maa jahiloo talaboo xayruhu ku xam mbirum sëñ tubaa doo wuti ji lenn lu moom lu waay di fàggu di ko wut di ci sonn am sëñ tubaa ko gën a wóor gën koo matale gën koo sotti ndax njëriñal tey ëllëg lay doon te day ànd ak bila aafatin wala kadarin wala stidrajin wala cheyin yasuhu fil xaali wal maali loolu sëñ tubaa rek ko am jërëjëf Mbàkke yow mi ñëw fii mel ni yaa indi tampon bi nga xam ne moo tax ñu xam ne lii ñuy def sëñ tubaa nangu ko kon ci turu suñ jëwriñ sëñ aatu ñoo ngi lay sant dina la cant sant cant koo xamante ne lott nañ ci ci ci ci ci ci defee ko ni mu waree waaye nag na la wóor ne noo ngi yeesalaat sunu lépp ci bisub tey ci ni sëñ Tubaa defoon la woo xayaat yi wa mawti yi wax dawoo walawoo sirri wa jëhri wa yux nii nii bi alaafi sunu dund ak sunu dee sëñ Tubaa rek koy moom dootuñu yëngooti ci dara lu sëñ Tubaa kon dimbali ñu wërsëgal ñu ak xam bët du ñu teg suñu tànk fu ñu ko war ta teg waaye fas nañ yéene kenn duñu moom ku dul bii nii la ko sëñ aatu waxee bu la neexoon lépp nga jël ko maye ko yaa ko moom lebuñ ci lenn ñaanuñ ci lenn saraxuwuñ ci lenn danoo dajale buntu tawféex yi nga ubbil ñu ko mu jàpp ni lool lu waaye yóotu jot ci ñu liggéey ko ba mu agsi nii kon ñoo ngi lay sant di ñaan nag ñu amaat barab yu gën a yaatu ba nga xam ne exposition bu ñu jógee ci stand bii fukki hectare ñoom ngi ñaar yoo xamante ne gaaral rek day leeral mbirum sëñ Tuubaa ku dugg sa woto dugg ci stand bi da ngay duggaat sa woto demaat ci beneen stand lépp doon loo xamante ne day jéem a leeral mbirum sëñ Tuubaa ndax moom moo wax ne ah moo wax ne na nasaxanii minal waraa baaxil xadiim allamahum bi annanii abdul xadiim moom bokkul ci bokkul ci doomu aadama yi suñu borom ko sàkk moo xam lu mu doon waaye ba mu ko sàkkee ba noppi nag suñu borom moo ne dinaa xamle kan mooy sëñ Tuubaa kon xam le sëñ tubaa ab jaam lott na ci waaye ndokk bi ko suñu boroom sa sasool boppam kon sëñ tubaa àdduna sépp nañ xam mooy kan bilaa idan aw alami dina li ñëpp dina ñoddi ñëpp dina teg ñëpp ci yoon te kenn du sonn te xaddu damm jërëjëf Mbacke. sëñ Abdou Lahad waxoon nañu ne. waaw nee na sëñ Abdou Lahad mu mu baax ma sa wajur wu tedd mooy waxoon nañu ne ñu. ñun ñëw fanaan ak moom ba bët set. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. bi xëy xëysee ci moom. bi ñu xëysee ci moom. mu mu ne ah, ko mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïra. nu ko sax mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taïra. ma ne ko déedéet Mbacke. sëñ Atou mii ne ko déedéet Mbacke. mu ne ko àgg naa ak yéen ci su ngeen bëggoon def lu ko génn dootu ko mën. mu ne àgg naa ak yéen ci su ngeen lu génn sëñ Touba dootu leen ko mën jërëjëf Mbacke donc kon defe naa lii moom mooy kaddu yi bu bëtoon une seconde képp sax doyoon na àdduna sépp nga koy suivre ñu ngi ko def en direct dongo yi di ko bëggee di ci sonn di ci di ci soññ bi yëg na fi ñu toll ni yoon wi yeesaat na. laataa waxtaan waa jeex keroog. laata laataa waxtaan way jeex keroog mu wax ni mu wax ne xam ngeen lu ngeen doon ci nun xam ngeen lu ngeen doon ci nun ma ne ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ay wéttal ay wéttal ngeen mu ne mooy du mooy sësooy mbagg mbaa yaakaaru leen ni wéttal mooy sësoo ay mbagg ma ne ko ma ci dara de nag du caageen sësooy mbagg mu ne du caageen sësooy mbagg de wéttal mooy wéttal mooy ne bu fekkoon sësooy mbagg la nee na nee na bu fekkoon ne sësooy mbagg la takk ak borom a ànd takk ndeer moo borom ñoo ànd waaye wéttaliwu ko waaye wéttaliwu ne kon wéttal mooy kon wéttal mooy